في كل سير وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر السفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه di leen siyaare di leen dookeel di leen dalal ak jàmm liñ ko wax te doon ko baaxoo defee noonu fan yii mu tàmbalee waat beneen liggéey muy beneen waxtaan bu am solo bu jëm ci sell ñi nga xam ne ñu ko def fii te di ko ànd ak waa Rawdu Rayaahiin te li ci ëpp ci programme complexe ci Ahmadou Khadim ñun ñëpp ñu gën ko bind ci université bi fan yii yëpp ñu ci def ay leeral yu am solo yoo xam ne dina tax ñu gën a xam liggéey bu sell boobu ni ñu ko tëralee ak njëriñ yu bari yi nga xam ne moo ci daje tey jii itam dañuy wéyee liggéey boobu rek sëñ Bakhy Abdourahmane bëgg ñoo defal kon waxtaan bu am solo boo xam ne mu ngi jëm ci njàngale majaalis muy xam-xam njàngale cosaan nan lañ ko waajalee ak ñu ko tëralee ci complexe boobu ki koy modéré itam muy sëñ Abdoulaye ñaan yaakaar naa bi ngeen ko ci yëngu ay yëngu ci xam-xam ak tasaare njàngal sëriñ bi kon yaakaar naa ñu mu dañu bàyyi sëñ Abdoulaye su mu ubbi su ko defee ñu tàmbali waxtaan bi wax nañu itam képp koo xam ne maaleykum rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala al-hadi al-amin sayyidina Muhammad ginnaaw bu ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonent alayhi wa ala wa sahbihi wa sallam ñu amaat mbégte di fas yéene ñëwaat ak yéen ci jotaay boo xam ne jàpp nañ ne bokk nañ ci jotaay yi ëpp solo ci jotaay yi ñu faral di amal taala ñu fas yéene ñu ci beneen bunt bu beesaat dugal ci beneen xët bu bees wala yu ci am njàng ci njël bi ñuy sant bu baax daal di trop nga yaqiin yitte yi ñu am ci taxawal jotaay yu mel nii waaye dañ ci sant waa kuréel gis bu tarqiib yi nga xam ne jàppalante ñoom ci jotaay yu am solo yi ci organisation bu parti yi tomb bi ñu fas yéenee jël tey fas yéene ko waxtaane ñoom ñun ñëpp xam nañu ne am na daara yu mag sëñ bi naal fii ci dëkk bi ñu nekk di Touba mu jëm ci njàng mu féete kaw njàng mu kawe daara jooju dañ koo ci ay wàcc pàcc yu bare bare lii jëm ci wàllu njàngum cosaan majalis lii jëm ci njàng mi nga xam ne njàng mi ñu xam ci jamono la dañ tolloog jamono pàcc bu bu aju ci wàllu majalis nag moom lañu fas yéene séq koog suñu mbokk moo xam ne nii xam nañ ko ci wàllu yi xam nañ ko ci wàllu yi xam nañ ko ci daay Hizbut-Tarqiyyah yi surtout nag tomb bii nga xam ne mooy seen waxtaan mooy Serigne Mbacké mu fas yéene waxtaanee ci mooy ni ko Pape Assane Diouf junjee léegi li muy ubbi mooy daara ji dafa am njàngum cosaan njàngum cosaan moomu nag laaj nañu xam ci biir mooy li ñu tuddee njàngum majalis njàngum majalis programme bi manhaj bi nga xam ci la fas dox ak itam lan moo ko tax a jóg ak lan la mun loolu incha allah bu gisiñ bi duggee dana leer ci seen bopp incha allahu taala ginnaaw bu waxtaanee tomb bu ba noppi bépp laaj bu am jokkoo ak li ñu doon waxtaanee nga xam ne laaj bu mu génn doon waxtaanee des na ko jox kéem tolluwaay ñu ko ci waxtu bi mu ñëw ci ñun incha allah ñu dëkkante waxtu kon dañ koy jox kàddu gi kon sëñ bi incha allah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 di siyaare mbokk yëpp waaye di siyaare bu baax ak ndokkeel alxalifatul am lil muridin Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ndokkeel it mbokki daayiratu Rawdu Rayaahiin ñi ànd ak xisbu tarqiya ci taxawal jataay xam-xam yu am solo yi bokk ci li ñuy waajale màggalu sëriñ bi di ci leeral lu mat a xam waaye di ci jot li lu amal njëriñ nit ñi tey nag ni ko sëriñ Abdou Lahad waxee ñi war a waxtaan ci njàngu majalis ni sëriñ bi bëgg ñu def ko ci daara ju mag ji bi taxawal ñu ngi siyaare bu baax mbokki boroom xam-xam ak gëstukat yi fi teew nga xam ne liggéey bi ñu doon liggéey tem jëm ci daara ji ñoom ñoo ci nekkoon di ci liggéey ba li ci sëriñ bëggoon mën nañoo wax ne moom ko ñu ngi seere ñëpp di ndokkeel ñëpp euh, njàngu majaalis nag njàngu cosaane la ci réew mi dama wax ne bu lislaam amee ab cër ci réew mi ci njàng moom la sunu mag yu baax ñi ridwanullahi alayhim daara jooju moo leen génne te ci xam-xam Euh, ci làkk làmmiñu arab ak jikko ñoo ca ne ca kaw te daara yooyu moo leen defar nga xam ne da doon jàng la di yare kon njàng mu am solo la moo xam ne fii ci Sénégal ku xam dem bi réew mi doo wax doo laajte luy njariñu njàng ndax meneen njàng mu fi ñëw rek ci njàng moom lu sukkandiku mën a ñëw mboolem yeneen njàng yi am ci diini ñi ko sos ci majaalis lañ génne bëgg a ak jamono wala bëgg jariñ ñeneen ñoo xam ne yeneen i gisin lañ amoon moo ci jur yi ci des waaye ñun ñëpp daanañu mu leen génne kon njàng mu yàgg Sénégal la waaye mu am njariñ la ndax du Sénégal rek la am ba àdduna bépp sax mën naa wax ne mooy njàng mu fi jiitu di njàng moo xam ne bokk na ci lim ràññikoo dëgër ak xóot loolu bokk na ci ay melam maanaam ñëpp ñi nga xam ne ci daara yi majaalis lañ génne di jaar foofu war a jaar lañ xam mu néew ko bari moom xam-xam bu leer lay doon bu xóot lay doon waaye bu yàlla lay doon nga xam ne ma waat yañ jàng ci foofu moom ba noppi ca lañ ci soxla lépp danañ ko mën a taxaw kon muy njàng moo xam ne réew mi waru koo ginnaawal yoon wi nag moom mooy laltaayam ndax doy na misaal rek wax ne sunu sëriñ Cheikh Bamba radiyallahu anhu ci daara ju la génne maam Mor Anta Sali way juróom radiyallahu anhu daara yi jàngale xam-xam majalis bu yaatu la yoroon yoo xam ne bu doon ci waxinu jamono mën nañ koo tudde ab université moom itam ba mu nappee daara ju mel noonu la taxawaloon ba yar ci ñi yar defar ci waaye daara joo xam ne ràññi koo kon xam-xam bu xóot bu yaatu waaye ràññi ko yi ab yar ndax du rek day sol nit ki xam-xam waaye da doon sole xam-xam ne loolu bokk na ci solo si am ba tax bi sëriñ bi naa lay daara ju mag ji gis ne xam-xam yi ñu fa war a jàng jàngaleen ya dara waru ci jiitu njàngum cosaan bi nga xam ne moo ci la mag ñi jaaroon démb ba àgg fi ñu àgg ci xam-xam te ba tey jii am na ay borom xam-xam yu mag ci réew mi ay ndaw ak i mag di ay imaam di ay gëstukat di ay yarekat di ay jàngalekat daara bi moo leen génne te jataay bu ñu teew fànn ga ñuy wax ñëpp danañ xam ne jekku nañ te lam laa it ngir mën koo jottali ak mën ko jariñ dana nekk ci ñoom ndax nit it dana xam lu bari waaye manqué jumtuwaay yoo xam ne benn du ko mën a jottali mbaa bu ko jottalee it nit ñi du ci jariñ daara jooju nag moo tax sëriñ bi boole ko ci daara ji wax ne gone yi buñ jàngee alxuraan ba noppi war nañ leen a jàngal xam-xami kon njàngu majalis mi loolu moo tax sëriñ bi boole ci bokk na ca bëgg a ay boroomi xam-xam yoo xam ne ay nit yàlla la ñu doon na bokk nañu ahdafam takwin ulama rabbaniyin te loolu lu am solo ay boroomi xam-xam mën nañoo bari ci waaye nekk aalim rabbani nag moo mën a jagal am réew mag ñi fi jaaroon mooy seen melokaan yu gën a fés ba tax ñu mën a liggéeyal diine liggéey bi ñu ko liggéey kon jublu daara ji mooy former ay ulama rabbani yoo xam ne ci liñ leen di formé it day tënku ci wasatiyatul islam ak diggu doom gi nga xam ne sëriñ bi yàgg na ko woote yàgg ko jàngale daan ñu jàngal wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita nit koo xam ne day am tawaasu day diggu doomu du ëpp du yées ndax ëpp ak yées lu ci nekk sikk la lu ci nekk sikk kon defar ay boroomi xam-xam yoo xam ne dañuy diggu doomu ci seenu dundin waaye xam-xam bu cosaane bu piir moom lañ leen di jox waaye nag dañuy bàyyiwaale xel li jamono laaj ci xam-xam yooyu lu ca mat loolu ñu doole kon daal fexe ba génne ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñu ragal yàlla te xam yàlla la ñuy doon yoo xam ne buñ noppee ci ñoom nag li ñu doyee ñu fexe ba risaalatul islaam fu mu war a egg ñëpp ko fa waaye nag risaalatul islaam boo xam ne dañ koy wéer ci njàngaleem sëriñ Tuuba woote bi sëriñ bi woote woon muy ak njub doon na yonent salaatu wasalaam ñu bëgg nag ay ndaw di boroomi xam-xam yu yanu risaala boobu ba mu war a egg ci àdduna bépp ndax xam nañ li seex Sidiya waxoon ne sëriñ bi xéewal la mu ñëpp moom xéewal boobu nag ñii ñu wàcc ci ñoom ñoo ko war a tasaare ñoo am masuliyam yóbbu ko fépp nit nag lu mu xamul dund ko mënu koo jox keneen te yàgg ngeen dégg sëñ Mountakha Xamsa di wax ne lu ñu am ci sëriñ bi bëgg moo ñu ko may waaye xamul ko dund daara ji nag daa bëgg ñu xam sëriñ bi dund sëñ ba risaala bi mu yoroon mën a egg fépp ñëpp xam ne loolu sex si di waxoon ne sëriñ bi xéewal la ku xool gis ko ku la mu daj loolu bokk na jublu gi daara ji am waaye fexe ba it nag ndaw ñooñu xam-xam ñu jëm ndax diine xam-xam moo koy yóbbu fu ne nit mënta jàngal dara ci àdduna te xam-xam la te Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu am njàngaleem ci sàkk bëgg nit ñi xam ci la ko wéroon kunu ma'an fil ilmi raaxibiina ñëpp ñëpp la bëggoon ñu jàng ci wooteeb sëriñ bi kuñ naan moo yeyoo jàng amul ñépp ñoo war a jàng góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñu ñuy tudd ay doomi soxna ak ñi ñuy tudd doomi leneen ñépp war a jàng ndono la loo xam ne ñépp ko bokk te dañ ko war a ànd xam di ko sàmm di ko dundal waaye xamit làkk yi nga xam ne àdduna làkk yu bari lay la xam ku bëgg a jariñu jariñe faaw nga am jumtuwaayu jokk kon daara ji fas yéene it former ay nit ñoo xam dañuy doon am xam-xami lislaam yu mat sëkk am yarub lislaam bu mat sëkk waaye nag am jumtuwaayu mën a koo ak ñeneen ñi mën a joxe man a jël ndax àdduna foofu lañ toll àdduna joxe ak jël fexe ba li am ci lu baax nga mën koo jox keneen waaye feneen foo demit lu baax lu fa nekk mën koo jël te loolu ci ndigal yi ñu sunu sëriñ digaloon ci la bokk fu ngeen gis lu baax feneen jël leen ko boole li ma leen jox jumtuwaay yi ñu jëlee nag kon ndaw ñi war nañ koo am ngir fu ñu dem fekk ba baax mën koo jël loolu bokk na ci jublu gi daara ji am waaye nag bëgg nañoo it sàmm jàngalin woowu ndax xam nañ mu am ci meññet ñu mu defar xam-xam bi ni mu ko fi téyee ba tey jii mën na la wax ne la am na xeeti xam-xam yoo xam ne ñi ko peeg dëgg-dëgg mooy ñu génn ci ko majalis boobu yeneen jàngukaay yi jàmbaar lañ mën nañoo former ay mu faqafoon ñu yaatu xam-xam waaye yenn xam-xam yu xóot yenn xóotaay yi ba tey jii ñi ko jekku dëgg-dëgg mooy ñi génn ci daal misaal mi jox bokk na ci ay mun fëlal xam ne ci la xam waxtu julli yi di ci xam koor ñu dog waxtu ne mën koo xam ci ay jumtuwaay yu doy war mag ñi ko téye ba tey jii ci daara yooyu lañ génne kon fexe ba xam-xam boobu des li ci manqué wala li ci war a dëppook jamono ñu dëppale ko jamono li jamono laaj lu koy yombal ñu fexe ba andi ko ci loolu bokk na ci li tax ñu bëgg euh, majaalis bi taxaw kon jublu gi foofu la liñ ci jàng nag mooy liñ doon jàng sutante sutante bala ñoo napp ñëpp danañ ko jëm bu ko defee ci dimbalante boobu anam ko mel noonu lañ fas yéene jàngale lim laajee ci jariñoo nusuus yi fexe ba nit lim xam man ko jariñoo it danañ ci liggéey incha allah nga nee lii njàng daara majaalis yu njëkk ci mën a mokkal jekku nas yi ak ngër njariñi école moderne ci mën a jariñoo li ngay jàng ci bu gaaw yooyu la fa séene boole ma daal bu noppee liñ bëgg daal la baax ci majaalis lépp mi da ci des waaye li ecole moderne indi ci baax ko danañ ko jël mu fekk si mu ci aw tëralin ci nu ñuy xaymaa ci ay xam-xam yu bees yu nekkutoon ci majalis te ñu soxla moo xam xam-xami diine la moo xam xam-xami àdduna moo xam xam yi làkk la parce que yéen ki jëlee ci majalis bi làkk yi am njariñ ci àdduna yëpp la koy mën a xam ngir moom itam bari na ci borom xam-xam yoo xam ne tey li ñu xam ci diine bari na yaatu lool waaye dama ne ma ne xaa ah, dong lañ mën a wolof dong lañ mën a jàng te àdduna nag day dox nit war naa mën a ñëw doon ab chinois ak si fii ñu jàngal diine fii ba mu xam lépp dellu man ko dosaale kon làkk yooyu daara ji di ko jàngal nit ba li nga xam ndax yooyu formation rek la boo xasee am xam-xam bi ñu formé la ci làkk wi koo dajale te mën nga ko jàllale kon daara la joo xam ne insha allahu taala bu noppee daal dana mucc ayib insha allahu taala bu ko defee it nag li daara ji laaj lépp ci taxaw nag nos ko am idaara ba koy saytu am waxtu yuy jàng lépp mu ci biir bu ko defee daara jooju nag ngir dugg ci pour jàng faw ndax ginnaaw ñi soxla du ay nit yi nit yi nit ñi ay ulama rabbaani yun lañ soxla aalim rabbaani yi du doon ay yuwaayut moo koy doon kon ngir dugg ci nit ki day mokkal alxuraan ba boobu mu miin kon lool loolu mooy sart bi jiitu programme bi moom mën naa tasaaroo ne fu ne ci jàkka yi ci jàngukaay yépp ku bëgg a jàng jàngu waaye ngir dem ci daara ja nag dañ faa soxla ñoo xam buñ noppee dafa am risaala buñ bëgg ñu mën ko jàll kon faw dañu doon ñu ràññiku ñu ñu tànn ñu wattu alxuraanul karim wala ñu miin ko lool ñoo koy dugg bi ci desit ku ñëw ku ne dañ la natt ndax programme la foo ñu toll ñu tollal leen bi ci des ki fay dugg du am lu ëpp fukki at ak ñeent nit ki koy defar da ngay tàmbale woon ci suuf jàpp nañ ne fukki at ak ñeent gone gi mën na cee wattu alxuraan bu rafet bind kaamil ni ñu ko baaxoo def dinaa bu beqee ñëw na dugg ci daara jàngaleem jàng daara ji ñeenti étape la marxala bu ñu tuddee marxala asaasiya ak marxala mutawasita ak marxala mutaqaddima ak marxala aliya mooy benn bu ci nekk ñetti at lay doon nga xam ne marxala bu nekk am na lu mu xaw a tollool ci njàngeen wu yees yi man ne ñetti at yu njëkk yi niveau certificat la ci doom bu jigéen ñetti at yi ci topp mu am niveau brevet ñetti at yi ci topp mu am niveau baccalauréat ñetti at yi ci topp mu am niveau licence nga xam ne kon ku fi def fukki at ak ñaar danga am niveau licence te jàpp nañ ne da nga peeg charia ca lañ ca gën a soxla ndax fànn yi nga xam ne téer yi ñu tànn ngir di ko ci jàngale mooy nday nday jàng xam-xam nga xam daal liñ jàpp mooy ki topp programme ba mu jeex moom ci wàllu diine lañ ci soxla dana ko am su bëggee bay jàngal nag ne am doctorat ak yeneen ba tey am na bunt yu ñu ubbi dana ko dana def ndax université bi day wéy waaye bu dee xëy na li mu wuuteeg lay jàng université moom ci diine lay gën a fés maanaam ki fi génn spécialiste dëgg-dëgg mooy diine dana jëpp diine ci ay xam-xam yu wuute waaye jekkul làkku arab li nga xam ne mën ni suta dégg diine ni mu ko waxee léegi te dégg jekku koo xam ne danañ ko mën a jariñoo waaye ngànnaa yooyu it yeneen làkk yoo xam ne loolu nga xam ci diine boo gisee ku dëgg làkk yee nga mën ko caa jàllale mën ko caa jariñ ci tënk daal loolu mooy daal ñu daal di am yaakaar joo xam ne lim laaj lépp yi nag ci wàllu waajal def nañ la ca lépp it sëriñ bi noppi na ngir def kon incha allah taala bis bu tàmbalee euh, ay buntu dara ubbi képp koo xam ne matal na sàtt it noppi nañ jël ko dana dana mën a jël ay góor di jël ay jigéen yi ndax li ñu soxla ci góor loolu lañ soxla ci jigéen bokk na ci li sëriñ bi andi woon ci sawara xam ne ni ñu war a jàngale góor noonu la ñu war a jàngale jigéen ba tax mu yóbbu njabootam ci daara yi ñuy jànge ni góor ñi doon jàng di wattu alxuraan di ko bind jàng xam-xam ba doon ay borom xam-xam loolu it bokk nañu bëgg a téye kon danañ am góor ak jigéen waaye dañ leen jàngal yaram leen ba bu noppee nekk ay ulama rabbaani yi ñu ko waxee ku ci bëgg a wéyal njàng na ko wéyal yooyu it ku ci am benn étape ba génn bëgg a jël beneen système mën naa nekk masal nit mën naa jàng ñetti at am lu tax mu war a génn dem dugg ci système école bi jàll nit man na fay jàng am bëre wala am baccalauréat bàyyi système mondialiste bi ngir xay na am xelam gën naa màcc ci yeneen i xam-xam mu dugg ci université bi jël yeneen branche lu ci nekk mën naa nekk waaye lu ci am solo daal mooy ku fi nekk ba jeexal moom boroom xam-xamu diine ngay doon waaye yaramam laaj da ko am waaye danga am jumtuwaay yi tax nga mën koo jàll lii la ci tëkk mooy li na ci daara ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu bokk na ci li mu wax ne xam-xam bu wér kéew dëgër borom man caa ko nam ko neexee te xam-xam ba la sëbëru ba ba nga dëgg ko ko ko soxla nga jàngee ko ci majalis dëgg yàlla jàpp naa ne loola am na ci gelluwaay euh, bu dëgër si képp koo xam na xam-xam bu wér ci luy yàgg surtout nag liñ ci jujju mooy matières yi nga xam ne ñoom daanaka seen domaine loolu muy wàllu loolu war naa tax ba ñu gën a jox yitte njàng majalis bokk na lim ci junj loo xam ne lu am solo la mooy ñu ëpp ci ñi ñuy joxeñ baaraam fii di ay borom xam-xam yu mag euh, boo xoolee la ëpp ca lañ jàng ñu ngi ko jàng ci majalis la ñuy sakkuwaat ginnaaw yëpp ginnaaw ba dafa ñëw nekk lu sosu ca kaw lañ jàngoon la dëgg-dëgg boobu fëggee lañ soxla woon jàng mooy bañ ciy joxe mel mel misaal mu xorom ci suñu bopp yàlla fi réeram Serigne Talla Mbaye yàlla njàng yi fii ba jeexal nee nañ lool ci njàng ba mu demee keer bi ñu koy jàngal ñu ngi koy jàngal loo xam ne mu ne mu ne man de dëkk dama am xam-xam dafa téye ko sama waaw mu ma jëlu ma te kon loolu di di firndeel ne xam-xam bu kenn am na am na naar naar boo xam ne si dina daal suñu bés suñu bés ne ko xat bu ngeen koy leeralal mu ne xat xat na maa maa dina tax leen maa bu taay mais naa leen nga xam ne ma tënk yi ñu tënk rek am solo lool si jàng bi comme lu fës na di wane am solo boo xam ne jàng na yàlla ci biir yi tax njàng bi jóg bari na lool waaye tënk ci ñaari yoo xam ne dafa dafa mat a bàyyi wale mooy wax na ne bokk na li ñu tax majalis bi jóg mooy former ay borom yu xam-xam yoo xam ne nii duñ nekk xam-xam duñ yor xam-xam kese waaye dañ nekk ulama rabbani loolu nag day mel ne jamono dafa ko soxla ndax xam-xamu kese boo xam ne ënt dund yàlla jafe-jafe ak ji na réew yoo xam ñëpp waaye la leen teg firnde mooy xam-xamu kese la bu ënt dund yàlla nit ne bu feesee dell ak xam-xam boole ko dund yàlla teg te nag yaakaar ba ca ba ba ca teguwaat nga te te dama ci mujjee ci li mu doon fay ci biir solos majalis bi mooy li mu wax ne message maanaam li sëñ Tuubaa diwoon nga mën koo jàllale ci façon boo ko koy sukkandiku maanaam euh, jël li sëñ bi indi woon jàllale ko ndax wax na ne seet si biir wax na ne sëñ Tuubaa njariñ la xéewal xéewal bu ñëpp ci war a jot léegi nag kooku dañuy njëriñu majalis bi ko njaboot yooyu ñëpp koy jox nan la koy joxe la koy joxe ci façon boobu bu am solo sëñ bi waxtaan bi am lool loolu dana si njëriñ xam naa kon naa euh, ko ba xam am ku ci war a hmm? waaw kon public bi su fekkee am na ku ci am benn waaw suñu saa bu fekkee waaw في كل سير وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر صلاة الذي في كل سير وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر صلاة في كل سير وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه